Dangal TV ci BPS bi gaay yi di yefal ngir mu nek télé non non non bul ko xeeb kaay fi ñu yefal. mbokk yi yow mi bëgg jaaro bu baax lool ci ubbeeku ci wërsëg ak protection manam karangé mbokk yi isel jaaro bi set cat du man ci yow dara. bayre nak mom bi jaaru amu ci morom da ngay am bayre lol. mbokk yi jaaru bi dal mos xam la kep ku ci bëgg mën nga joko ak ñun ci numéro yi di afsé ci écran bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi benn histoire yi ni boo xam ni boo am solo la benn soxnaa ngi nii nekkoon ci université bi di fa jàng nekk soxna su taaru lool rafet lool mboolem góor ñi nga xam ne ñoom lay jàngaloon ñi nga xam ne ci université bi lañ nekk ñu koy fréquenté ndax taaram bu jekk boobee. nga xam ni xale yu góor yi dañ daan njëkkante di xëccoo ngir mën koo jege pour waxtaan ak moom waaye moom ndaw si yàlla da ko natt mu nekk koo xam ni ku am ay sikki la. maanaam mu nekk koo xam ni du muuru ku ñàkk diine la toppatoowul diineem benn yoon waaye ku nawoon ab taaram la maanaam ku taar woon la lool ba taxoon na da daan indaale ab seetu ci école bi daanaka saa yuñ toogee ab diir rek mu génnee seetu bi di xool boppam di muuñ di reetaan waaye amoon na ñetti xarit ñetti xarit yoo xam ni waaye moom moo leen dàqoon lool waaye ñetti xaritam yooyu ñu am diine lañ dañ daan muuru di toppatoo seen diine bu baax lool ba daal di matal seen université ba génnee fa ñaari ñetti xaritam yooyu nekk na ñoo xam ni am nañ ay borom kër seen borom kër yi nekkoon nañ ñi nga xam ne ñoo doon jàngandoo ñoom ci université ba. loolu nag daal di koy jaaxal lool ana nag laa mën a ànd ak ñii ñu nekkandoo man ci biir université bi ma dàq leen lool xale yu góor yi di ma fréquenté ñoom ñu génn rek a am borom kër te man amaguma benn borom kër. Lol taxon na mu commencé di fréquenter xalé yu goor yi waaye yalla suñu borom dogal ñim daan bokkandooloon di jang moy xartam yoyu daal di am ay njabot Batay mom taxul mu am borom kër ben yoon waye tax amon na ki nga xamni mom la daan bëgganteel tam mu bokkoon ak mom université ba ñom ñaar ñu daan bëggante ko mu daan bëgganteel nak daal di dem daal di takk beneen soxna daal ko fi bayyi ki mu tak nak nekkon ko xamni ku daan muru la ku fonkon dinem la ku noppi won la ko xamni amul won soxla ci lenn lu am njàngam ci université bi lol nak jaxal na soxna si lol naka la ma fi meuna a ak fiñu jaar yëpp man ak mom dem di tak kenen lolou dal dina koy jaxal lol mom ndaw si waye ben bis waji nga xamni mom mo daan beugante ak ndaw si ben xale bu góor taxaw ak mom di laaj yow an lan motax nga bàyyi fi ki nga doon beugantel dem di tak kenen te yeen ñaar ngeen yag lol lan mo taxone bi ngay tak takoko xale bu góor bi di xamal waa ji ni ko waaw waaye man dey bu may takk soxna dama koy tànn dama koy xool bu baax a baax ki ma bëgg a àndal sama dund lu bare bari kooku dama koy saytu bu baax. tey it day doon nit ku baax ku am diine tey it kii ma takk nii doon na koo xam ni am na lu bari lu mokkal ci alxuraan te ko fonk diineem la. te ma nit dama bëgg soxna soo xam ni boo amee naqar da koy ànd ak yow boo amee bànneex mu ànd ko ak yow man daal nii tànnee sama soxna. te kee xamna ko bu baax baax ndax man ak mom kat ñu nekk na ci université bi te man ak mom ñu daan bëggante itam lool rek motax tax ma dem takk soxna su baax si ginnaw bi waxtane loolu yalla def soxna ci dal di leen di dégg bimu leen déggé nak ah ñi liñu wax kat moy dëgg ci la dem dal di tok ngir waxtaan ak njëganaayam manam, dal ci xalaat bu baax mu dal di yeddaat boppam waxtaan a xelam xam la nga xam ni moom mooy dëgg loolu tax na mu commencé waat di muuru commencé di sàmmante ak diineem di topp diineem bu baax a baax a baax ba yàlla dogalee mu commencé fonk diineem di muuru di toppatoo diineem ci diir bu gàtt rek suñu borom daal di koy wërsëgalee waaju ju baax bëgg ko daal di koy takk def ko soxnaam. kaay fii ñu yefal